loolu man su ma déggee ñu koy rafetlu sax daf may jaaxal parce que dafay mel ne nekkatuñu ci république parce que yaakaar naa ne ci république la ñu nekk ah euh, wax dëgg yàlla war nañu mën a négocier ak ñi nga xam ne ñooy autorité yi réew mi ba trouver solution mais li gënoon a rafet ñu ne président de la république trouve indi na solution wala premier ministre indi na solution waaye première dame moo ci dugal loxoom pour mu mën a sotti wax dëgg yàlla dafay am lu mu nasaxal ci suñu république ci sama gis-gis man. dafay mel ne rek euh, république amul dafay mel ne république amul loolu loolu man gisuma ci benn république maa ngi koy soogay dégg ci Sénégal ñu ne première dame moo régler problème bi à la place de la république loolu mooy man li nga xam ne ah ñi ngi koy. ñu ngi koy sàggane mais sujet de réflexion la war a nekk ci su ci réew